jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix su ak teraanga ak poche def dara ni ñu koy baaxu defee fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci ilallaahi ibaadallah di ay jataay ñu am ak yéen mu jëm ci benn xam-xam bu tudd ilmu tazkiya wala ilmu tasawuf walla ilmu tarbiya wala walla wala ñu toog toppoon kooku yéen nag ba toll ci mu kaffiraatu dunub maanaam yi nga xam ne day fari bàkkaar yi nga xam ne day fari bàkkaar ñu ñu tudde woon ko ay xamaamaat xamaamaat bu ñu ko wax ci wolof ay toilette lay doon yoo xam ne am na saabu am na njàmpe ak ndox mu nugg ak sarbet ak yi ya cee ajuwa yépp ci wàllu ku bëgg a def toilet su bëggee watu am na yu ko man loolu lañ tuddee xamaamaat boroom xam-xam yi ñoo ko tudde woon ñoom Ibnul Qayyim ak ñi mel ni ñoom tey jàngale xam-xam yooyu waaw xamaamaat yooyu muy toilette du def ci am bu tudd at ba muy tuub bu ñaaral bi tudd al istixfaar muy jéggulu jéggulu istixfaar muy jéggulu tabaarkalla bu ñetteel ba tudd alxasanaatu wa taaat alxasanaatu mooy rafet yi a taaatu mooy topp yi yooyu daa daa bokk ci liy fari bàkkaar def lu rafet day far bàkkaar waaw inna alxasanaati na yuzhibna sayyi'aati alxuraan a ko wax bokk na ci yooyu at tawxiidu mooy wéetal yàlla ak fexe ba doo ko bokkaale loo dégg ñu ne bokkaale la rek dawal waaw dawal bul wax nit ñëpp a ngi ci jëm bokk na ci xamaamaat yooyu muy toilette soxna njinde mooy jàpp ak julli jàpp ak julli hmm? waaw waaw jàpp ak julli dafa bokk ci liy far bàkkaar kon nag nan ko soxoo ci di ko góorgóorloo te buñ ciy def ñu jéem ko rafetal waaw mu ngoog Ousmane ibn Affan dégg ngeen njàppam la tabarkàlla ba mu jàppee ba noppi la mu waxoon ñam ne woon dama leen bëgg jàngal nu yonent bi jàppe bokk na ci far bàkkaar yooyu woor saraxe aj koor sarax aj koor weeru koor wi waaye bu bu weeru koor wi jeexee koor yi naafile ngàtt ngay waaw bu loolu weesoo sarax te bañ koo def ni saraxi nogay léebarub ceeb juróom benn weer waaw ñu bañ koo def noonu aj màkka it mu ngoog ci yiy far bàkkaar la bokk ma tolloon ci dëkkër zikrullahi muy tudd yàlla tudd yàlla ci liy far bàkkaar la bokk waaw tudd yàlla ci liy far bàkkaar la bokk bi ci teg nag tey mbokk yi mooy baax ak jokkoog bokk mooy sunu bi nu tey baax ak jokkoog bokk maa ngi ci ilallahi ibadallah maa ngi ci lay far bàkkaar tey ñu ngi ñëw ci tomb bu tudd albir wasila baax ak jokkoog bokk baax la ci jiitu mooy baax ci sa yaay ak sa baay birul waalidayni gis nga nit mën naa théorie fii ba bëgg baax te bàyyi fi yaayam ak baayam waaye ëllëg théorie ba du jàll fenn adduna nag bu la neexee loolu la neex mën nga ko wax ndax adduna daanaka na ma yàlla baal ay commentaire rek la ko nit bëgg a jàppe waaye baax fii baax la fële te ama ngërëmal ñaari wajur loolu mënul nekk mënul nekk waaw ñaari wajur sa baay boo ko xeebee doo dem sa yaay boo ko xebee doo dem wax naa leen ni xar da ngay fekk ñu yow ko ca tànk ba bëy noonu gëléem noonu nag noonu ilaaxiri waaye golo moom ci ndigg rek lañ koy yeew ndax daay golo daa yab yaayam moo tax ci ndigg lañ koy yeew mu yóotu te jot dara foo fekk golo mi ngi yóotu bu gisee lam yóotu mu ngi koy yóotu bu gisul ma nga yóotu demal fu golo nekk rek nga xool parce que golo dafa respecté wul yaayam moo tax ku respecté wul sa yaay nag dañ la yeew ci li rek loo yaakaar ba defe nag ci jot day tas maax la ko tey fii nag ak fële fii ak fële moo tax jokk bokk li ci jiitu may ñaari waajur baay ak yaay nañ ormaal yaay yi nañ ormaal baay yi nañ dellu ginnaaw ci liñ leen di teg waaw mukk waaw jokk bokk jokk bokk rawatina bi waajur yi toll ci ak mage bi waajur yi toll ci mage gis nga ak ndawe ak ak mage dañu niroo wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil xalq ak mage ak ak ndawe dañoo niroo lépp looy gis ak ndaw di ko def rek màggat mën na koo def moo tax kon yàlla dafa bëgg yow mi nekk xale di bang bangee sa ñaari waajur nga màgg say waar waajur màggat na nga nekkoon ca ak ndawe ñoom ñu màggat mel noonu yàlla yi seet ba xam ndax am nga ngor ndax gore nga soo goree day yañ la defoon na nga ko def mbokk mu daa ñëw ci sëriñ fàllu radiyallahu taala anhu ne ko sama yaay day dëkk biñ nekk mu ci gën a bari wax sëriñ fàllu sama yaay yi bari wax waaw waxa waxa waxa ba jeexal sëñ Fallou di ko déglu rek waaw bi mu jeexalee ban ne ko ba bëggoon nag nga wax ci sëñ Fallou laaj ko bu laaj sa yaay dana jooy guddee waaye dana tekk ne ko ah déedéet loolu de mu àggagu ca mu ne ko demal kon yaa gënoon lakkale foofu ndax ni mu bëri wax nga bëri wax ba noppi danga cee tegoot di jooy guddi mu jeex tàkk Jibril dafa ñoo sa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dafa mas ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daat ne mi ngi ñaanal képp koo xam ne kii say ñaari waajur fekk na la nga man dara walla kenn ci ñoom fekk la nga man dara te ñaanaluñu la alku nga ba faw bi jibril di ñaan loolu yontu ma naan amiin amiin waaw koo xam ne kii fekk nga fi sa baay walla fekkante nga fekk moom mu na fi ba jóge fi <laughs> te mësulaa ñaanal njëggal alk nga ba faw yonent bi ne amiin waaye mbokk yi jamono day ñëw rekk defal doom lu bàyyi amut doom ne sogg ëpp naa def de wala jamono ñëw defal doom lu yaay amut doom ne sogg ëpp naa def de ëpp naa def de waaw baay ak yaay lu waay mën ci def ci lu baax ci ñoom def ko ndax li la fi indi ñoom ñaara minimum boo amoon ngor sax ni leen merci papa merci mama te bañ a topp tubaab yi rek waaw feete ko tey bu ëllëgee ñu fàtte leen fête des mères fête des pères bu ëllëgee ñu fàtte leen te war nekk toujours fête ba baa nga leen di sàng ci biir suuf walla ñu sàng la alimaam ahmad mu ngi ne ci li ñu jële ci Tirmisi yi ci hadis boo xam ne ibnu Umar moo ko wax mu ne jenn waaye dafa ñëw ca sallallahu alayhi wa ne ko man de damaa def bàkkaar bu rëy inni asabtu zanban azima damaa def bàkkaar bu rëy yonent ne ko ha mu ne ko waaw fa hal lii min tawba ndax mën naa koo tuub ndax mën naa koo tuub ki yàlla yónni woon néew ko luy sa bàkkaar déedéet moo tax ah allahu akbar cey waxu ko luy sa bakkaar daf ne ko hal laka min ummin ndax sa yaay ngi fi qaala laa sama yaay dafa gaañu mu ne ko hal laka min qaala ndax sa tàntaa ngi fi ki bokk si yaay ndey ak baay qaala naam xaala fa biir raxaa demal ca moom nga def ci moom ci lu baax ba mu kontaan yàlla jéggal la sa bàkkaar bi laaju ko nag ban bàkkaar nga def <laughs> tànt mën naa wóotu yaay bu fi yaay nekkut ndeke tànt mën naa jër place yaay bu fi yaay nekkut waaye tànt yépp a ko war na dégg nag ndax léeg-léeg tànt di ñëw kat dem ba yaay jóge fi tànt toog lu tax ngay toog te war a wóotu yaay mhm. ngeen baal ma <laughs> waaw tànt tànt bu fi yaay jógee rek tànt daa war a ñëw ki bokk ak yaay ndey ak baay waaw ki bokk ak baay ndey ak baay nekk bàjjan ndeysaan bàjjan mëri ku <laughs> bàjjan mëri yàlla na ko yàlla yokk wér moom la moom la fi maam jama dese ndeysaan sunu maam ba jën mari waaw cey waaw moom rekk la fi des yàlla na ko fi yàlla bàyyi waaye waaw jenes ñëpp sunu borom jël na leen mook bàyyi mbay fi desoon bàyyi mbay dem mu des fi ba jën <clears throat> waaye yonent bi déglu leen rek waa ji daa ñëw ne ko man de damaa defoo bàkkaar bu rëy bàkkaar bu rëy waaye waxu ko ban bàkkaar nga def <laughs> waxu ko foo ko defe waxu ko noo ko defee day bañ lu luññutu ndax luññutu la alxuraan tere wala te jës sa suuf yonent bi dafa dafa ñukk bàkkaaru baa ji daat ne ko hal laka min um ndax sa yaay ngi fi ndax sa yaay a ngi fi mu ne ko sama yaay daa gaañu mu ne ko ndax sa tàntaa ngi fi fa hal laka min xaala mu ne ko waaw sama tàntaa ngi fi mu ne ko fa biir raxa baaxal ci moom yoo ko defee yàlla jéggal la sa bàkkaar bi nu mu toll xam hmm? waaw waaw rawaahu ahmad wa tirmisi wa ibnu maaja wal xaakim ala sharti shaqi shaykhayni ustaas Cheikh Tandiar ñu jële ci Omar ba tey maa ngi ci ilallahi ibadallah maa ngi ci liy fari bàkkaar maa ngi ci baax ci say waajur ak jokk ak bokk Omar nee na jenn waay def ne ko xataltu nafsan xaala ummuka xay waaw xay sa yaay ngi dund xaala laa xaala fa abuk qaala naam qaala fa birrahu wa ahsin ilayhi demal ca moom ngay def ci moom lu baax suma xaala omar law kaanat ummuhu xayya fa barraha wa ahsana ilayha rajawtu an la tutcimuhu annaara abada cëy omar mu ne maa ngi yaakaar ne bu ba yaayam doon dund mu def ci moom lu baax maa ngi yaakaar ne sawara du ko lekk moom waa ji ibnu abbasid jàngale na lu niroog loolu ba dama ci al buxaari ci al adabul mufrid isnaadu saxiix ala sharti cheikhayni wax jooju ma nga ca jënn jigéen te nee nañ mooy jigéen ja njabaroon njabarug duumatul jandal ah nee na daal di ñëw almajina di laaj tuub di laaj tuub ba mu ñëwee majina mu fekk sallallahu alayhi wa génn na àdduna jigéen ji dafa def ak njabar njabar mooy dem ci sëriñ ne ko defal ma nangam mu ne la indil nangam te weexal man nangam ndaw si loolu la def te nag penc mi am na ñu ko ci def jabarlu sa wujju mbaa nga jabarlu sa goro ah waaw nit ñaa ngi koy def de wala sama doom ji dafa takk diw te dama bëgg sëy bi tas wala nga ne ko doo fi amee doom de ah ndaw si loolu la def jamono yedd ko mu xam ne adduna tukki da àdduna lu fi jar loolu amu fi mu aw dàllam ñëw ci yonent bi di tuub si fekk mu génn àdduna fa qaala laha ashaabuhu saaba yi ne ko law kaana abawaaka xayayn bu fekkoon sa yaay sa baay ngi dund walla kenn ci ñoom ñaar ma ngay dund ñoom ñaar doy nañ la walla kenn ka doy na la mbokk yi ndekkete loolu bàkkaar ndekete baax ci sa yaay mën na koo far baax ci sa baay mën na koo far baax ci say bokk mën na koo far mën na koo effacer hmm? waaw waaw mu nga wokk loolu nag ci mbooloom saxaaba la xewoon mbooloom maanaam saxaaba yu bari ñoo ko fekke te mooy ala anna birral walidayni yag fii yag yag fi yaanika aw yag yaaniha maa ngi ci ilallahi ibadallah maa ngi ci mukaffiratu dunub yooyu far bakkaar mu ñëw ci beneen tomb ci tomb yooyu professeur mooy al ihsaanu ilal xalq mooy di def di lu rafet ci mbindeef yi def lu rafet ci mbindeef yi ak yërëm leen ñoom ñépp yërëm nit yërëm bàyyi ma fas ya xar yag nag yëg bëy waaw mu ngoog ndax ñooñu dañoo jëre yërëm fas ya xar yag nag yëg bëy dañoo jaru yërëm ndax ñi yërëme la yàlla yërëm ñi yërëme la yàlla yërëm ku yërëm ki nga tane ki la tane yërëm la ku yërëm ci nga seefu ki la seefu yërëm la waaw léeg-léeg ma ne soxna si ki ki ki gën a gën a mën a yërëm ci dëkk bi tey bokk na ca mbindaan jànq mbindaan rawatina jànq bu la xaw a mag wala ngeen maase mu tëj kër jëkkëram ñëw sa kër jëkkër di san foo seexlu mu xëy fa waaw loo ñëw raxas mu raxas ko loo munta fóot mu fóot ko bu wàccee raxasu na la tànt maa ngi ñibbi baat ya nga cay teg rek waroon naa wàcc coonum bi yépp baat ya ngi cay teg waroon naa wàcc coonum bi yépp tànt maa ngi ñibbi hmm? ndeysaan nga tegal ko ci jërëjëf doom jëlal juróom fukk yooyu ci kaw taabal ji nuyul ma sa yaay waaw yàlla nañ fanaan ci jàmm dëggal lewte waaw kay waaw waaye bul naaje de mu yow xanaa bala nga wax bul naaje wax ak moom dara yàlla nu yàlla yërëm ku dul yërëme kenn du yërëm ma wax la ko tey te jamono ji ngay soxla yërmande bu fekkoon yërëme woon nga bu agsee rek tabarkalla mbokk yi ci ibaadaat yi biñ ci tollee ci wàllu lii far bàkkaar gisoon nañ ne ab sarax day far bàkkaar ni ndox di faye sawara ab sarax day fay bàkkaar ni ndox di faye sawara ah waaw waaw waaye nag ban sarax ndax mooy sarax bi nga gént ay picc ki ay njuuma ñu ne la génneel sarax déedéet sarax boobu jinne yi nga ko génneel génneloo ko sa bopp génne la ko say mbokk ab sarax danaan dajjut àgg fenn àgg fa am fa njëriñ waaw mbokk ma daa sarax mbokkum daara bi oto mu ne lu ma koy ñaanal <laughs> waaw caabi oto la ko sarax mu ne lu ma koy ñaanal daa jara ñaanal la ñaan gi nangu na waaw mbokk ma sarax nit këyitu kër waaw këyitu kër waaw ak ak ak biir màkka yeeg ah, xaftaan yeeg waaye tabarkalla ma ne la waxati la ko saraxub nogay moom léebarub ceeb juróom benn weer ku ne xam ne loolu moom du sarax genn wàll ceeb sax laay wax juróom benn weer yonente bi aleyhi salaatu salaam daan wax ne kullu maarufin sadaqa kullu maarufin sadaqa njekk lu ne ab sarax la njekk maanaam ki portable wadd nga sëgg far ko jotle ko sax am nga ab sarax abu musa abu musa al ashari kere bi nga xamee ne mu ngi ci lalu sukuraat abu musa al ashari borom alquran ju neex ja moom la ñoom jéeri saar tudde seen daara ja waaw abu musa al ashari waaw ñoom jéeri saar yàlla na ko yàlla yokk wér mu ne ko mu ne doom ja doom mu ne ko ah mu ne ko ana jaaykatu beñe ba beñe ba waaw muy jenn waa joo ne ji ma nga woon ca église ba tabarkalla di fa def ya muy def waaw mu ne eh, daana ko gis lu mat juróom-ñaar fukki at a nii seytaane daal ñëw ak jëmm ju bokkut ak jëmm ja nekk jëmmi jigéen daal ko kii kat war na fi amaat juróom-ñaari fan ak juróom-ñaari guddi waaw léegi mu daldi wëlbatiku ba mu jëlee beñe wam ca amoon daldi koy saraxe ah mu ximbilikuwaat daldi gis ne lii ko doon jéema wëlbati seytaane rekk waaye la ko may mooy sarax boobu mu génne ca jamono jooju mu toll ci fii mu toll mbokk yi nekk te sarax baax na ca ci far bakkaar la bokk kon nag nanu fexe bay def lu baax tey saraxe lu baax waaw tey saraxe lu baax hmm? waaye kopp koppal tabarkal la jàpp ne sarax moom ku ñàkk pexe lañ koy defal hmm? te te ñi ko soxla bari léeg-léeg nga génne ko mu nekk ñaari dërëm ak lu kenn xamul jox ko jenn waaye xas ko ca tabarkàlla lu leen nga dugg ca boobu ba boobu sarax man mën naa ñàkk a mën a far bàkkaar kon sunu bind tey ci illalaahi ibadallah mu doonoon lii far bàkkaar indi nañ ci tomb yooyu nga xam ne moo romb léegi tabaarakallah waxtaanu àjjuma gu samedi gu dimanche nag wu ci nekk mën nga ne benn yoon lañ koy am ci weer wi ndax dañ koy déglu dégluwaat ko dégluwaat ko loolu indi bind bu bees dégluwaat gi tabaarakallahu am na ci solo ndax am njàng la bokkut ak yeneen yi nga xam ne ay formation wala ak ñoom seen yooyu jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defeem seen rajo